sama waa gaay kon mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar mu mel ne ñu ngi tey Géejawaay nag Balla Gaye numéro 2 moo fi woote woon pour open press am yaakaar naa ne gis nañ lim fi def waa Géejawaay yëpp génn nañu comme ni ko Boy Niang defe woon démb Pikine Balla say supporter a ngi waa Géejawaay a ngi nii sur si moyen 3 wala moyen looy wax waa Sénégal looy wax waa Géejawaay ginnaaw bu ñu la nuyu ziar la bu baax a baax a baax. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ma sant yàlla juri si yonent bi sallallahu alayhi wasallam sant samay ñaari waajur sant suma sëriñ sëriñ Bassirou Bara di ñaan sëriñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu tawér njabootu waa kër Alaaji Malick ñu yàgg fi loolu tawér njabootu Cheikh na Cheikh Sadibou Murid Tijaan Xaadir Laayeen Ñaseen Baay Laay ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm rawatina waa Géejawaay gi nga xamante ne ñoo bàyyi seen yëpp ak supporters yi nga xamante ne aussi ñuy bëggee Balla Gaye numéro 2 mais balaa maa sori ah, damay am benn appel bu may lancer rek ginnaaw nag làmb mooy suñu cosaan lamb lañu am mooy suñu fête nationale ñu war a jëm le premier janvier dama bëgg Macky Sall musul seetaan lamb fii ci Sénégal waaw mais dama bëgg mu ñëw seetaan si le premier. président de la république dama bëgg mu ñëw seetaan ak opposition bi yëpp ñu xam ne Sénégal benn la lii mooy suñu fête national opposition bi mag Sall ñoo ngi koy woo pour mu ñëw seetaan bi combat te loolu ñun jeunesse bi lamb lañ am lamb lañ bëgg lamb lañ fonk mooy suñu cosaan amuñu lenn lu lamb mais nañ ñëw magi Sall maa ngi koy woo mu ñëw seetaan si lamb ji le premier janvier di nuyu sumay staff ak sumay encadrement bu baax a baax di nuyu Abdou Aziz Aly Ndiaye bu baax di ko jox wàccuwaayam di ko jox lépp lu mu moom ko sant di ko gërëm di ko ñaana jàmm di gërëm suma père Diaw bu baax a baax ndax gis ngeen coono yi bàyyi ma jigéen bàyyaale nga xam ne suma lépp la maa ngi koy sant di ko gërëm Masata maa ngi lay sant bu baax di la gërëm Babacar Ndiak Omar Gueye Cheikh Mbacke Kabou Naar Mbaye Diop Talla Meng Modou Fall Pape Mama Andaw Ndiaye maa ngi leen di bëggee bu baax a baax rawatina école de lutte Balla Gaye maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di gërëm monsieur le maire bi fi jugee Ahmed dara di gërëm Ilimane Lam di suma xarit di suma nit di suma lépp vraiment gis nañ coono ñu ci daj rawatina waa Waalo bu baax maa ngi leen sant suma waa dëkk waa Casamance bàyyi mu fenn waa Fouta waa Canaba maa ngi leen di bëggee bu baax a baax waa Mourtani suma mbokk chrétien yi damaa bëgg combat bi ñëw ci incha allah damaa bëgg ñu ñëw ci xam ne bala Gaye numéro 2 woo na leen di nuyu nag supporters yi nga xam ne suba léegi ñu bàyyi seen yitte ñoo di seetaan Balla Gaye numéro 2 maa ngi leen di sant jëleen gërëm di leen jox seen wàccuwaay ñu war a dem la premier janvier di ci ñaan yàlla yàlla mel ñu ndam di gërëm mbëru géej waaye yëpp ñu fi teew na ma kenn guy gi jaar na fi la de guerre mu ngi fi Ngaaka Blindé mu ngi fi waa gis nga Jackson mu ngi fi Aline Seydoux mu ngi fi Eumeu Sène Junior mu ngi fi Sococim mu ngi fi coach su Lamine mu ngi fi maa ngi gërëm sama coach si tamit gii maa ngi koy sant bu baax di gërëm gis naa liggéey bi kontaan naa di gërëm Khadim suma entraîneur boxe maa ngi koy gërëm di gërëm waa Kaaba waa Asfa maa ngi leen sant bu baax baax a baax baax di gërëm di gërëm géejawaay gi yëpp nag képp ki nga xamante ne rek ngi géejawaay yàlla defal la tey nga am di gërëm caat Seck nga xam ne jaar na fi def devoiram kon donc maa ngi koy sant ko gërëm di gërëm mbëru Géejawaay bu ma limee naa juum Adama Ngom mention spéciale Adama Ngom famille Ngomès maa ngi ñoom démb la tey doog a ñëw di gërëm famille Sakho yëpp famille Ndiaye maa ngi ni bëggee di ñaanal jàmm école de lutte bi yàlla dafa leen ndam di gërëm Lamine Golo nga xam ne suma ancien la maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm su ko sim ah, sa kees mention spéciale di gërëm Bousse nga xam ne sama xulóowaale sànq yi ñëw xulóo lañ ba sonn kon nag vraiment Bousse ñëpp xam nañ ne nu mel ci man jàmm rek laa ko ñaanal bugguma sax di ko gërëm di gërëm liiru jaan suma mag day fanaan ci bundu kër yaa ngi dégg aw ma fayam di gërëm aussi tamit booy yi nga xamante ne ñooy fanaan sama bundu kër suba ngoon guddeeg bëccëg aw ma seen fay waa golf sama dëkkandoo yi maa ngi leen di baalu di gërëm suma famille di gërëm sama fokk famille yëpp yëpp yëpp bàyyi ma kenn bu ma limee dinaa juum ndax man àdduna ñoo may ñaanal àdduna ñoo may sitaan maa ngi gërëm sama mbokku balanta yi sama mbokku saraxule yi sama mbokku bambara yi waa Touba waa Tiwaawan waa Gàmbi waa Guinée Bissau man ñëpp may ñaanal waa Mourtani incha allah maa ngi premier partie la. Balla man li ma seetlu mooy xam nga bërki démb lañ mu jaja daje TFM mais biñ la fa fekkee. Balla gay bu sévère lañ fa fekk Balla gay bu tëj boppam waxul ak kenn xoolul kenn wax naa sax keroog te man bu ma la dékkaat micro rek nga wax mais keroog danga ngaa lank ka ne doo wax fas sa kanam mais tey damaa gis Balla Gaye de boo xam ne dafa firi happiness di fecc di foo di ree diggante bi lan moo fi soppeeku wala combat bi jegeñ bi la wala lan la Balla yëg fi nekk nii. non dara soppeeku fi ndax xam nga ku xam Balla Gaye numéro bi ambiance moo ko moom kaf moo a kafe daa am a yàlla dogal na ne dama ñëw fekk samay supporter fekk samay am di jàmm moo war leen a bëggal te dama leen di bëggal ci moment bii nga ma fekkee nag moo war leen a bëggal ci nga ma fekk mais moment bi nga ma fekkoon foofu du yoon wax waaw dernier xare Badar la woon yàlla dogal na nag xëy na antuwul mais nag ñëw naa fekk samay supporter ak sama am di jàmm maa ngi leen di bëggee digal na waa GFC bu baax a baax ay seen ay seen fi ñëw ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm yaa ngi dégg ngaa ko blende moom téemoon na mi personnellement moom borom baax la dañuy jokkoo dañuy am jàmm géejuwaay la dëkk waaw moom du ngaaxa te du ngaaxa blende mais ñoo far mais tey euh, defe naa fi mu nekk nii nag ay fan yu néew a des ci sa combat ak Bal ak ki nga xam moom mooy Boy Niang Boy Niang dégg nga démb déclaration bi mu def kera seen face a fas ñëwuloo nee na daa am lu ko téyewoon waaye démb tontu na ci loolu leeral na ko mais nee na yaak moom la mu la waxoon ba tey jugu ci bu dee daa am loo ko guuxal bu ginnaaw maanaam bu dimanche boo mënee jël ba kanam na nga ko jël ndax moom bu mënee jël sa bos du ko jël maanaam da koy jël. waaw maa ngi gërëm Demba bu baax a baax euh, waa euh, KPE maa ngi leen di gërëm baax di leen sant di leen gërëm euh, di gërëm Aliou Sall aussi te ah maa ngi koy sant baax di ko gërëm vraiment di gërëm Malick Gakou di suñu mag suñu kilifa ak Néné Tall ah maa ngi koy gërëm bu baax a baax waaw man nag Babacar Lamine lamb kenn ñaanu yàlla jël bakkanu kenn xam naa ne bu dee bakkan yi moom xam naa dinañ bëri ginnaaw papaam wax na bu ñu bëree cinq minutes te daanuma ñu jël bakkanam moom bu ñu naree jël bakkanam aussi tamit day métti nañ leen defal ñaanal leen nañu ñaanalante jàmm ñaanalante loo xamante ne moo am solo moo am njëriñ lii liggéey la liggéey boo xam ne kenn ku nekk da ciy tedd am lu mu jël yóbbu ko ci këram ay bakkan soxlawuñ ko foola kafre kafree te incha allah bu neexee yàlla bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan te sax bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko man nag li ma bëgg man dama ko bëgg a duma ba pare daan ko duma daan ko nga duma booy ñaa ba nga lool dama ko bëgg a duma ba pare daan ko que man nga loolu dama koo bëgg a duma daan ko man nga lool dama koo bëgg a duma ba pare daan ko booy ñang ku ñuy duma ba pare door a daan la dama koo bëgg a duma Babacar xanaa yow yaa ngi may déggoo déggoo ma dama koo bëgg a duma daan ko aywa maa ngi leen nuyu bu baax a baax Balla ngay bëreeg mbër boo xamante ni comme ni ma ko laajee dem rek noonu laa la koy laajee waale loolu laa la koy laajaatee depuis combat bi taxaw ba léegi dafa am engagement boo xam ne daf ko jël ci combat bi ànd ak détermination bu mat sëkk fu ngeen tase moo ngi jéem a heurter sa sa sensibilité lan ngay daloo sa xelu supporter par rapport ak Boy ñaa li nga xamante ne moom lay waxee minimiser say qualité comme ni ma ko waxee parce que buñ gisee buñ buñ defee jàngat ci ay waxam jàngat boobu lañ mën a loolu lañ mën a gis minimiser say qualité di heurter sa sensibilité maanaam mel ni benn lamin lay taseel lan ngay dalee say xelu supporter waaw man li may wax rek xam nga àdduna moom cest à gis nga wax sa mbaaxuwaay yàqul dara sa mbaax man dama ko may sens ñaari defet la tegale maa ko may sens amul lépp loo xamante ne rek bu may wax moom bu may wax na ma waxal lu baax ak lu rafet moom dafa ma war jox ma cër bëri naa fi mbër bu ne mais li jam solo xam nga mooy lan ku ñu may sa sens da ngay réglé tax yem te xam ne dañu laa may sens palmarès boole wuñu victoire boole wuñu kase boole wuñu xam nga la moo ñu boole bëgg bëggal amateur moo ñu boole mais du daree laam moo ñu boole amul lenn non soxloo moom mu moom bu ma respecté mais bu subaa dama respecté loolu maa koy liggéey maa koy jëf. Balla Gaye numéro 2 maa ngi lay nuyu di nuyu géejawaay gépp Balla Gaye numéro 2 démb dañoo seeti Boy Niang maa ngi nuyu le premier magistrat de la ville de Guédiawaye tey gis nañ ko ci bis bi ak Guédiawaye gépp waaye Balla Gaye démb danoo seeti Boy Niang numéro 2 ñu gis ko mu xaw wàññi poids ci combat bi biñ ko dikkee suñu micro laaj ko nee na dafa pare pour jàkkaarloo ak Balla Gaye numéro 2 dafa bëgg koos combat bi ak yow dafa bëgg a jàkkaarloog yow ci xeex bi dafa bëgg a jàkkaarloog yow ci bëre bi est-ce que numéro 2 pare na pour koos combat bi. ak ki nga xamante ni mooy booy Niang ndax premier kàddoom bi mu njëkk a wax mooy bay may ba Balla Gaye une minute bu Balla Gaye ñëwul mu dem mu dem ba ci yàgg changé changé li nga xamante ni mooy communication bi est-ce que pare nga pour cons combat bi. waaw mais xam nga làmb moom làmb li jëpp am solo mooy ku jël avance di nga bëre di nga xeex loolu jarul laaj bëre ak xeex lañu wax. waxuñu bëre simple de bëre ak xeex dana xeex wala dana bëre moom na ngeen ko doon laaj question boo am solo mooy est-ce que Boy Niang mos ngeen koo gis mu jàkkaarloo mbër am njaay joxal jóob c'est plus important mooy loolu am njaay jox jóob mosoo leen koo gis ah kon am na yoo xam ne nit bu koy wax dangay day nax boppam ay lu ma ko guuxal moom xanaa ñëpp ko guuxal moom lu ñu wax mu ne dañ ma guuxal moom moo xam moo guuxal àdduna bi yëpp yow combat boo am ñëwee dañ laa guuxal te yow bu arbitre sifflé doo def li la xam nga laa koy xamal na préparé lu bees li muy waajal ma ñëw ma defaral ko loolu moo am solo te bu mu daw génn saako yi te bu mu daw dem syndicat jërëjëf ñu degloo gaay jërëjëf Balla maa lay nuyu bu baax a baax di la siyaar démb dañoo dem Boy Niang ñu jëli ji ko nee na li mu sekk ak yow dina ko def dina ko def mooy nee na dafa bëgg combat bu diire ngeen di ànd di nàcc di faju ji di dem di ñëw nee na loolu mënoo cee mucc te dina ko def ak yow jëflante yow ngeen ànd dem ardo ñëw parce que mosoo ko ñam. xam nga dem solo mooy li ma wax rek laa lay waxam ku mu sa taxaw am njaay joxul jóg man boo waxee say wax. du ma la comprendre man question yi laa koy waxaat pour mu ñëwaat ko papaam dafa taxaw ne cinq minutes bu bëreeg man daanu mu joxe bakkanam mu ñëwaat def première signature ne papaam dafa baax moom une minute fu mu fu ma nekk man mu fekk ma fa duma ma daan ma moo ko wax wax waxaat amul gor ca wax ja sportif au niveau ngay sport am doole am fit loo wax da koy def man na ci leen koy waxee une yooyu ma may dinaa ko xaar bu ñëwul fu mu nekk ma fekk fa duma ko daan ko ñibbi. Balla Gaye numéro 2 ñu ngi lay félicité di gis Guédiawaye ñu ne àndee topp sa ginnaaw ñu gis mbër yi ne dañoo mën a xeex yëpp bañ dajeeg yow da ngaa dugg seen gàddu duba leen daan da te gis combat bi. waxoo ci wax xeex lu wax da nga da nga naan da nga mbapat adversaire benn toll wala da ngaa jàpp ni ah, bëri bu la mën a xam nga nag yéeg léeg dama yaakaar na ngeen di bëgg a fàtte Balla Gaye numéro 2 lu mu def ci làmb damaa bëgg ngeen di bàyyi xel loolu c'est pas n'importe kii ci làmb loolu yàlla def na ko man seetaan ngeen sama ñaata combat man musuma xam palmarès su Boy Niang yàlla xam na loolu mais jour bi nga xamante ne dama seetaan palmarès sam ak sama palmarès tu m'as déçu vraiment je suis désolé mais tu m'as déçu xëy na nag bëgg ko sens rek ak bëgg ko may moom boole ak moom ak lu amateur yi bëgg duñu benn ci dara duñu benn ci dara te bu at bi sifflé di nga xam ne duñu benn ci dara non c'est moi le plus fort plus fort de tous les leaders loolu yàlla def na ko. maanaam yaa dàq bëri ci mbëri su ma la dee deux c'est moi Balla Gaye 2 plus fort que tous les leaders. oui c'est ñëw mi ngi ñëw ma ñëw ma ñëw. Balla Gaye 2 maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di ñaanal sa adversaire jàmm Balla Gaye 2 ñu bari dañ daan wax naan Balla Gaye 2 amul état de forme tey ñi gis Balla gay 2 ak ni mu mel nii ak li mu indi supporters yi tey lan nga ñuy wax le premier janvier loo mën a jëflanteeg sa adversaire si état de forme bi nga indi tubaarkàlla macha allah. waaw liggéey la rek xam nga liggéey boobu yëpp mooy boo respecté say encadrement respecté say supporters respecté say am di jàmm respecté say supporters respecté ñu lay ñaanal respecté ñi ngay àndal moo tax man toog di nelaw waruma lépp lu may def fulla ak fayda laa koy defee ak jom ak ngor ndax damay kilifa yi topp sama ginnaaw damay ñaanal di sonn ci man. man liggéey ba dee te li ma leen waxoon démb tey laay waxaat mbër dootuma yab ci Sénégal incha allah bu neexee yàlla. jërëjëf. salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu bu baax Balla. maa ngi lay nuyu. waa mais Balla maa lay nuyu. waa dina wax ne bii mooy sa neuvième fois ngay dugg géejawaay Balla Balla maa ngi lay nuyu Mamadou Diouf TVA maa ngi lay euh, euh, laaj benn question bii mooy sa neuvième fois ngay dugg Pikine dugg nga fa huit fois am fa six victoires ak deux défaites bii mooy sa neuvième fois nga fay dugg te boo génnee fa nga jëmaat Balla lan nga pare pour indil ko li nga xamante ni booy booy ñaar ci lu teng lu ko xamante ni nit ñi mën nañu ko séntu bu néew mu ñëwee téye boppam naka ngay réagir. waaw xam nga fu nekk nii wax bi daanako lépp jeex na ay at lañ doon wax ay weer ñaari weer ñetti weer benn weer ba une semaine motatu sax semaine maa ngi koy ñaanal jàmm moom suma adversaire ak salaam. da ko ñaanal moom ak fameem di ñaanal suñu père Gaston yàlla dafa ko jàmm di ñaanal yaay booy ñaa jàmm pile important je l'aime beaucoup mère boobu yaayam yaayam dafa ma neex xam nga lu tax dafa méngoo ak suma yaay yaayam dafa méngoo ak suma yaay yaayam mosoo ko gis mu wax lu ñaaw yaayam mosoo ko wax mu lu bon <clears throat> dama ko bëgg j'aime beaucoup te incha allah booy ñaam maa ngi koy waxal moom bu ko neexee ku daan na seet yaayam te man dinaa seet yaayam incha waaw ku daan na seet yaayam ku daan na seet yaayam ndax man damaa bëgg yaayam j'aime beaucoup maa ngi sant suma yaay di ko gërëm ndax li may gis suma yaay rek laay gis yaayam ko maa ngi ko ñaan jàmm léegi léegi léegi waa waa Lamine Lamine man xam na ma dimbali mu tontu ma ci fooru ba fooru fooru Boy Niang lan la lan mooy fooru Boy maa ngi sant ñëpp di gërëm ñaar la ba fooru Boy Niang mu ne lan mooy fooru Boy Niang. waaw Boy Niang champion la champion la damay wax nag waaye li may wax lépp dëgg la mais Boy Niang champion la ndaanan la mën na bëre mën na xeex te du ragal te une minute maa ngi koy xaar ñaa une minute maa ngi lay xaar. mais Balla mooy ma laaj la leen démb xama na ma la daan gis ak ay kagul mais ñoom démb andi nañu kagul xanaa lan la ci kagul yi. waaw mais maa ngi ñaan ñëpp jàmm di ñaan Sénégal jàmm yéen journaliste yëpp maa ngi tuub tey jégalu di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal salaam lépp lu ñu leen fi def rek loo xam ne méngoowul ak seen liggéey ngeen baal ñu àq parce que liggéey bi benn la parce que liggéey bi dafa métti maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam di gërëm nag aussi tamit booy yi nga xamante ne sama école de lutte la suba ak ngoon guddeeg bëccëg ñu ngi sonn ci man école de lutte bi ñiy toog fii ci kaw tribune maa ngi leen sant di gërëm di gërëm ma jigéen xam nga ma jigéen sama seex la te dama ko bëgg loolu bokk maa ngi gërëm waa Canaba guy gi guy gi wol waa Canaba Boucher wol waa Canaba Lac de Guiers waa Casamance Père Diaw wol waa Waalo Omar Gueye wol waa Seedo maa ngi woo ñëpp